ko dañuy dem ci li nga xamante ni moo di euh, campagne euh, seen candidat Amadou Ba gis nañ fi ay fan ñenn ñu bokk ci yéen génn euh, wane carrément li nga xamante ni moo di seen ñàkk ànd ak Amadou Ba est-ce que loolu du ko du ko affaiblir ci campagne yi nga xamante ni ci la ñu nga xam nga politique dafa bokk ci li gën a jafe parce que c'est un terrain d'expression de liberté. Euh, Amadou Ba posture bi mu nekk dafa nekk posture boo xam ne kenn mësu ko nekk ci ñiy def politique Sénégal donc c'est tout à fait normal mu am problème yi nga xamante ne ni moom la moom la am situation am na am na ñoo xamante ni peut-être amoon na ñu ay problèmes yoo xamante ne ni c'était postérieur ak moom bi situation amee ñu jéem ci profito pour affaiblir ko wala pour jéem a wut nañu ñu ko changer ça euh, am na parce que aussi ñi koy def tamit c'est leur droit parce que politique ku ci amul ku amul ambition aussi euh, nga toog waruloo ko def mais tey la ñu gën a gëm suñuy chance tey la ñu gën a wóolu suñu bopp ci fi ñu jëm parce que le bilan du président Macky Sall ci Sénégal may nañu ñu am yaakaar ci élection yi ñu jëm loolu moom amuñu ci. te wóolu ngeen nañu suñu candidat wóolu nañu suñu candidat parce que pour je vais revenir gis nga par rapport ak euh, Macky Sall combat bi nga xamante ne daf ko doon mën a nii ci par rapport ak conseil constitutionnel. Mm-hmm. gis nga tan xam nga tan. vautour tan doo ko gisee muy lekk sa noon bul yaakaar ni daf laa faral moo tax mu koy lekk. ce qu'on a vécu au Sénégal ces derniers temps c'est un précédent très dangereux boo xamante ni du dal ci kaw Macky Sall mën na dal ci keneen ku mu mënti mën na doon dal ci Amadou Ba mën na dal ci keneen mooy tey euh, genre kajoor gi ak ñu mel ni moom yenn yenn intellectuels yi ils ont donné beaucoup de pouvoir au conseil constitutionnel ba nga xamante ne ni ñu ngi jëm ci affaiblir la fonction du président de la République. mais c'est bien. C'est donc ça c'est ton point de vue. c'est bien c'est ton point de vue. kenn ku ci nekk ci ñun mais c'est a dénommé président. voilà donc c'est votre point de vue ah mon mon mon frère. c'est votre on termine rapidement point de vue. comme man aussi am naa sama point de vue. Mm. sama point de vue mooy man pour le Sénégal. ba le président Barack Obama daf fi ñëwoon ne l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes je dis que. man je prends le contre-pied du président Barack Obama l'Afrique a besoin aussi d'hommes forts que d'institutions fortes. D'accord alors.